ñoo ngi leen di nuyu baax kenn ku ne ci turam ak santam di jiital si nuyu bi ziar bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général kuli murit di ko ñaanal baax suñu borom gën koo yàggal gën koo dëgëral ci barke Cheikhul Khadim di ziare kilifa ak jotaay bi di Serigne Afia Bousso mi nga xamee mooy kilifa bare bi di Muqaddimatul Xidma tey jii nag ñu ñëw fii ci gaaw bi ànd ak waa Muqaddimatul Xidma ci fédération bi nga xam ne si ñooy setal bi sab gaaw bi gaaw bu jot ñu ñëw ci barab bi di barabu Cheikhul Khadim di seelal barab bi tey jii nag ñu ñëw fii ci turu fédération bi jëwriñ ñi nga xam ñoom lañ àndal liggéey bi ci soxna May Mbàkke mu si Muntaxa nekk jataay bi di jëwriñu jataay bi ñu koy ñaanal baax ci barke Cheikhul Khadim suñu borom dool ko kàttan ak wér ak soxna Bindu Saar mi nga xam kenn la ci liggéey bi ak soxna Mbaye Jum nga xam gaaw bi ñoom ñaar ñoo jiite mbooloo yi ak ci turu mbooleem suñ mbokki góor ñi àndal liggéey bi sëñ Abdoulaye Jatara sëñ Abdou Bousso ak sëriñ góor a Thioy sëriñ Pape Diop bàyyi ndong ak mboolem ñu àndal liggéey bi ak mbokk soxna ñu àndal ñëpp ñoo ngi di ziare bu baax a baax ci bis bi kon tey jii dañoo ñëw di ubbi liggéey bi rek ci bis bi nga xamee mooy weeru seel yu weeru tedd bi nga xamee ci la nekk di weeru koor tey jii nag fédération bi nga xamee mooy bis gaaw bi ñu ñëw fii tey di fas yéene jébbal seen suukur koor si nga xam ne si dañ koo fas yéene joxe ci liggéey bi nga xam xamee mooy liggéey daayira Muqaddamatul Xidma fas yéene koo teg ci loxob jëwrin yi ci jëwri ñi nga xam mooy soxna yaay Bintu Sarr ak soxna Mbayang Jum ñi nga xam ne ñoo jiite gaaw bi ci mbokki soxna yi kon tey jii loolu la ñëwoon fas yéene leen koo leeral xëy na dañuy njëkkalanteeg waxtu yi rek doon ubbi liggéey bi ubbi jotaay bi waaye am na ñenn ñoo xam ne si danañ jël kàddu ci jotaay bi bu ko defee danañ gën a mën a leeral liggéey bi kon daal loolu mooy li nga xam ne moom la doon ubbee jotaay bi rek fas yéene ko ubbi euh, bu ko defee dañuy daal jox kàddu gi soxna Oumy fay mi nga xam ne moo yor kàddu gi nga xam ne moo ko war a leeral kon ñu ngi jégalu baax suñu kàddu di ko yemal foofu di jégalu baax mbooloo mi kon bisimilah. bisimilah. bisimilah. ñu ne war yàlla ñoo ngi nuyu di siyaare bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah ci turu soxna May moom sëñ Muntaxa mi toog ci jataay bi di fi sëriñ nuyoo ci turam di siyaare ñëpp. ak soxna Bintu Sarr soxna Mbayang Jum sunu jëwriñ di siyaare soxna Njaxan Mbàkkim Sëñ Blaat ak soxna Bintu présidente Touba ci kanam soxna Fat Dia ñoo ngi koy nuyu baax di ko siyaare di nuyu soxna ma Awa Mbay soxna maam Faati Mbay di ko siyaare bu baax moom tam mu Abibu di wax ne seen ci biir di barkeeloo ci bis nga xam ni weer wu tedd wu di weeru koor ñu ngi ciy siyaare bu baax a baax di ci fas yéene barkeelu ci sukkaru koor si rek li ñu yéene sax ëpp na lii waaye nag dara du wees nañu ñaanal fan wu gudd ak wér rek ndax Sëriñ Tuubaa moom dara am amul tànki ginnaaw yu kanam rek li nga xam ne moom lañ yor bër barkeeloo amul solo ndax am nañ yéene ju ko ëpp waaye soxna yi di wax ni xam nañ liggéey jumaa ji gis nañ coono yi mm, gis nañ liggéey bi ngeen fii liggéey buñ sañoon tey lépp ñoo koy def waaye nag dara weesut soxna Bintu ak soxna mbaya ngi wax ni ñu ngi ko ànd ak yéen fas nañ ko yéene incha allah abadan li nga xam ne yor nañ ko muy ñeen ñeen fukki ni ak juróom ñu joxe ko àddee sukkar skoor na leen ñaanal bu baax ba bu déwénee ñi man lu ko ëpp ndax yéene ji moom toll na ni muy li xaalis bi ma yore nii soxna Bintou ngi ni toog ak soxna Mbaye sunu kilifa toog nii di soxna May moom sëñ Mountakha ñoom ñëpp ñu wëlbatiku joxe ci lu bari ñu waroon a yëkkati den jox waaye ñoo xam ne liggéeyal sëriñ Tuubaa moom kenn waru ko walle ndax kenn ku ne na nga mel moo la ko def te sëriñ bi doon na attaayal boppam ñu di ko laaj lu tax mu ne bëgg a barkeelu ci jëmmam ji su mënoon a doon ñaari jëmm benn bi liggéeyal moroom ji mu def ko kon boo ci satoo jël sa alal def ci mel na ni yaa ngay jàng la mboxoon te muy lu am solo ndax kenn ku nekk muy taalibe bi muy doom ji nu mel noo mel moo la ko melal koo xam ne noo mel moo la ko melal nag loo ko jox doyut te it wërsëgu murid yi moom wax nañ ni fañ ko ajoon ca asamaan sori na lool sëriñ bi di liggéey bañ jox ko ko kon ba nëgg ni ñoo ngi ci lalu ngatani yeeg laaxum ngooñ bi ak bu bu kon bu fi loolu jeexee tey sëriñ Tuubaa tax kon ki tax nag nañ ko delloo xorom si kon luñ ci joxe lu ne war koo xeeb addiyee moom du tuuti waaye du rëy kon nag li ñuy joxe xeeb nañ ko loolu ñu bëgg sëñ Abdou bu Bousso mi nga xam ne moo fi ne sëñ Abdou Khadir Bousso mi fi ne ak sëñ Abdou Lahad Jatara ñu yóbbante leen am nuyoo ci kilifa yu mag yi di ni jigéen ñi ñoom bañuñu ci dara luñ man lu ne seen kem kàttan fas nañ ko ci yéene ànd ak ñoom ba dogal bu sa borom ñu ngi sant bu baax nag ci seen taxawaay rafet na fu ñu toll ñu ngi ñuy gunge ci mbale mi ak taxawaay bi ba saa yu ñu geesoo gis leen amul benn yoon bu ñuy xëy si ci jumaa ji te ju geesu gisuñu leen ndax mënoon nañu tëdd ba ñu noppee rek bu ñëwee ñaanal ñu waaye ñoom ñoo ma koy ànd ba saa yu liggéey bi noppee kon nag soxna yi ne ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax di ñaanal fan wu gudd ak wér yaram dina ci seen ginnaaw fu ñu toll lu ngeen man di xewle wala ngeen man koy def luñ ci yëg bu soobee yàlla dinañ ko ànd ak yéen incha allah ñoo ngi jéggalu bu baax nag ci kàddu yi xam naa lu ci dëng ci ñun la waaye kilifa gi di ñu yónnee moom matale na waaye ñun ñi koy wax xañ na sunu matadi mooy tax lu ci manqué manqué ci ñu koy ballu àq ñëpp nag di baal ñëpp àq di ñaan suñu borom tabaraka taala boole ñu jéggal ci barkeb Serigne Touba ñu teewe ko déwén yu baree baree bari te luñ ci def ren mën cee def lu ko ëpp ëllëg incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuy te di leen siyaar di nuyu bu baax di siyaar kilifa yi fi teew xanaa di. santaat yàlla bu baax rek sant sëriñ Touba Xaadim Rasul sant sunu ñaari waajur xanaa di am mbégte lool ci sant yàlla ci boole bi nu sunu borom boole ñu ci feeñ muy sunu mbégte bu baax a baax a baax di ko sant yàlla itam ndax du lu yomb ndax eh, liggéeyal sëñ Touba rek moo fi des tey kon ku ci yàlla boole war ngaa santaat yàlla bu baax. kon mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen balaax te di leen balaax te di leen soññ bu baax nag bu kenn des kenn ku ne rek na nga xam ne lii rek moo fi ne te doonul la liggéeyal sëriñ tubaa ku jóg rek def ko ku ñuy tànn la kon nag ku ci bokk rek war ngaa xam ne boolewoo ci sa bopp kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax gën cee am pësteef gën cee am yéene te xam ne sunu njëriñul tey ak ëllëg rek la Euh, moom mooy liggéey bi nga xam ne moom dong moo fi nekk rawatin nag ci ki yi seexul xaddim ju tedd ji ñuy boole ñaq ak jëf ndax murit lool rek la war a def kon ñi ngi santaat yàlla bu baax di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di balaq ñëpp di siyaar bu baax sëriñ Afia muy sunu jëwriñ siyaare waat bu baax soxna Bintu Mbàkke sunu jëwriñ ak soxna Bintu Saar mi nga xam ne moomit kenn la ci jumaa ji Eh, di seer bu baax soxna njaxat sunu bàjjan ak soxna mbay njub ñoom ñi fi teew ak soxna mi fay mboolem soxna yépp rek di jéggulu bu baax di seer jërë ngeen jëf <laughs> xam ne dañuy njabootu sëriñ mun taxaa eh, ci biir njabootu sëñ Muntaxa ñu doomi sëñ Muntaxa yu góor yi ñoo leen di denc ñu nekk ci biir kër gi di fa liggéeyal yàlla ñoo ma joxoon nañ ma seen àddee ba moom laa doon andi nii kon nag ñooñu ñu ngi leen ciy fasaale bu baax te di leen ñaanal muy ñi nga xam ne doomi sëriñ mu taxaay yu góor yi ñoo leen di denc ñu ne dañ cee bëggoon a barkeelu ba yónnee woon mu seen àddee ba ci kàttanu yàlla moom laa andi nii maa ngi santaal bu baax jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baalu àq ñëpp ci weeru màgg sell wi di leen nuyu nag ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci njiital Sëñ bu Buso mi nga xamante nii moom mooy jëwriñu liggéey bi ay kàddu ñaan ay ay kàddu sant yoo xamante ni mi ngi jugee ci kilifay daayira bi jëme ci suñu mbokk soxna yi nga xamante ne ñoom ñooy taxawu bisub gaaw bii nga xamante ne lépp laaj ci jumaa ji lu ñu war a seetal te war koo ñoŋal ci gët ci xet gu neex dañ ko taxawee ba mat sëkk ñu di leen sant ci liggéey yi nga xamante si nii moom nañ ànd di ko jëfal Sëriñ Tuubaa fii ci barab bi te muy jëf ju sell joo xamante si nii jiitu na tey kon dañuy sant bu baax a baax ci jëf ji nga xamante si ni moom mooy jëf ji jiitu rawat na jëfi tey jii nga xamante si ni ci waxtu yi ñu toll muy waxtu koor weeru koor nekk weeru tedd wu màgg woo xamante si nii lépp lu ci sunu bo lépp lu ci borom dër rek loolee yàlla nañ ca jote ci barkeb sëñ bi ginnaaw loolu dañuy ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu tam ànd ak wér di nuyu sunu kilifa yi nga xamante ne ñoom nañ bokkal jataay bi buñ tuddee soxna mayam Cheikh Mountakha tudd soxna Bintu Sarr ak soxna Mbayang Jum mu yóbbaale ñu ci des ñëpp waaye tamit duñ fàtte sunu kilifa yi nga xamante ne tamit dañ leen a teewaaleel muy soxna Njaxat moom Cheikh Abdoulahat soxna Bintu moom sëñ Abibu ak soxna Fadja ak soxna maam Faati Mbay ak soxna maam awature Touré ñoom ñëpp duñ leen fàtte ñoom nañ àndal liggéey bi ak mboolem seeni euh, ñi nga xamante si ni dañ leen a boot ci liggéey bi kon liggéey bi mu nekk liggéey bu sel bu am solo boo xamante si nii dañ leen ciy jaajëfal rawat na addee ji nga xamante si ni moom ngeen indi tey ñu tuddee ko sukkur score mu nekk loo xamante si nii lu lu am solo la ndax barab bii ñu nekk muy barabu jumaa ji li commencé benn fanu koor ba fanweeri fan yi di mat wala ñaar fan juróom-ñeent ya bët bu set mbooloo mu dul mbooloo mu takku dana fi dana fi ndogoo buñ ko xayma ci tënk mën nañoo wax ne lu lu tolloog ñetti junni ci tënk ci gàttal rek danañ fa daje bët bu set ëpp na ko sax waaye nag ci tënk rek mën nañu wax ne lu ëpp ñett junni nit dana fi dana fi ndogoo kon mu nekk loo xamante si nii taalibe yi sëñ Tuubaa yi ñoom ñooy dajale seen addiya di ko indi fii ci barab bi ngir ñu koy taxawoo di ko taaralee weer wi di ko teralee weer wi di ci tamit liggéeyal Cheikhna Ahmadul Xadim ndax kenn ku ci nekk xam na ne amul dul weeru koor wax nañ ne bu weeru koor masaana ñëw maanaam nim ci nim ci nim ci nim nim ci nim ciy jëfandikoo sax maanaam du ko jëfandikoo ci beneen weer da ciy bég bég goo xamante si nii lam ciy def ci ay teraanga ak di Eh, di di di xeet li jaam yi loola yaatu na yaatu goo xamante si nii mu ne su ko wax yaakaar naa nag nit woor ba ngoon jot nga jox ko benn tàndar bu mu dogoo rek la ca nekk ci fay ak sunu borom loolu yi kenn xamul tuyaaba ji ni mu toll kon nag bu njëkkatee addiyee ji toll nii andil ko daayira mu xadamatul xidma ngir ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne moom la liggéey ci jumaa ji dañ leen sant bu baax di leen ñaanal sunu boroom may leen ak wér gën leen ba liñ man ren bu déwee ne ñu man lu ko ëpp te te ñaan sëñ bi nangu liggéey bi loolu daal nañ amoon ci ay kàddu yu ñuy yu ñuy jot li muy kàddu sant ak kàddu siyaare ak kàddu siyaare ci jëf yi nga xamante si ni jiitu woon na tey soog di ñëw kon nag jëf ji nga xamante si ni jëf nañ ko tey jii ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ko bokk ca jëf yem yem yem yem gën a nangu te ñi ñaan lépp rek ñu ñaanal tamit suñu kilifa gu baax gi sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu mu ànd ak wér